L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Soudan où l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan a qualifié ce jeudi 13 avril de tournant dangereux le déploiement dans les villes des paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, dernier épisode de la rivalité entre les deux hommes aux commandes depuis leur putsch en 2021. Ces derniers jours, alors que civils et communautés internationales étaient forcés d'accepter un nouveau report de la signature d'un accord politique censé sortir le pays de l'impasse à cause des divergences entre les deux hommes. Au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite a accueilli hier, mercredi 12 avril, une délégation iranienne venir ouvrir les missions diplomatiques dans le royaume, ainsi que le chef de la diplomatie syrienne dans le cadre d'un dégel qui redessine la carte régionale. La visite de la délégation iranienne est intervenue quelques jours après une rencontre historique à Pékin des chefs de la diplomatie des deux pays qui avaient rompu leurs liens en 2016 rapide de survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique où après trois jours d'exercice militaire autour de Taïwan, le président chinois Xi Jinping a appelé à renforcer l'entraînement au combat réel de son armée. Celle-ci doit défendre vigoureusement notre souveraineté territoriale ainsi que les droits et intérêts maritimes de la Chine et maintenir la stabilité globale de notre voisinage, a fait savoir le dirigeant chinois. télévision régionale du prestige avril ay jafe-jafe daal mu ngay wéy di am ci yenn gox fi nga xam ne moom mooy réewum Soudan ndax gis nañ ne paramilitaires yi nga xam ne général Mohamed Hamdan Daglo moom moo leen yilif ñu ngi leen di déployer fi nga xam ne mooy yenn ville yi nga xam ne ñoo nekk ca réew ma ah, ñu gis ne nag ñaari général yooyee te ñoom ñoo àndoon amal seen coup d'état ci atum 2021 waaye nag jamono yi seen diggante mu ngay wéy di ñàggas ba tax na nag général Mohamed Hamdan Daglo daal dina jël troupam yi di leen euh, déployer wala di leen wàccee ci yenn euh, gox yi nekk ca Soudan loolee de euh, jaaxal bu baax a baax ki nga xam ne mooy général Abdel Fattah al-Burhan ñu gis ne nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci communauté internationale doon nañu wax rek ñu fexe daal ba jàmm daal di dellu fa nga xam ne moom mooy Soudan gis nañu nag déploiement militaire yooyee tax na nag ba xel daal mu ngay ñaaw ci li jëm ci jàmm joojee jóge fi nga xam ne mooy goxub Soudan dem fële ca Moyen-Orient Arabie Saoudite démb ci alarba bi yemoon na ko fukki fan ak ñaar ci rub avril daal dina dalal ab délégation bi nga xam ne dafa jóge Iran ñëw rek ngir tijjiwaat la nga xam ne mooy seen ambassade ya amoon ca royaume bu Arabie Saoudite dalal it chef de diplomatie euh, iranien euh, ñu doon dëggal rek la nga xam ne moom lañu ñu signé woon ci réewum Chine ci bés yi weesu euh, mu nekk nag juboo boo xam ne mu ngi Eh, di dëggal boppam seen ci diggante eh, Iran ak Arabie sawdit ñaari réew yooyee nag seen diggante eh, dañ ko tasoon ci atum 2016 gis nañ ne nag fu mu toll nii ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo gën a am doole ca Moyen-Orient ñu ngay wéy nag di bugg a booloo ngir jàmm dox seen diggante ba faw jeexalee xibaaru bitim réew yi fi nga xam ne moom mooy Asie Pacifique ginnaaw bu ñu amalee ab exercice militaire ci digdigalub réew réewum Chine moomee sax seen président di Xi Jinping wax na rek ne soldaare nañu gën a ñoŋal li nga xam ne ñooy entraînement yi dañu jëmmal ko comme kuy dem ci euh, gër géerub dëgg euh, gis nañ ne nag armée bu Sinwaa def na taxawaay bu amat sëkk ci li nga xam ne moom mooy démonstration de force ci euh, dig digalub Taïwan Xi Jinping dellusiwaat wax ne ñoom de ñoo war a aar seen moomeel te ni ñu nangu mukk kenn di bugg a rax ci seen biir ngir féewale li nga xam ne mooy taxawaayu Siin ci réewum Taïwan ba tax na nag nee na daal la leen war dinañ ko def ba mu mat sëkk ngir aar li nga xam ne mooy seen réew